Ah, di leen jaajëfal lu bari bari di leen ñaanal jàmm lu bari te koy sàkku si yéen di leen baal wax te di leen baal wax waaw ñu bëggoon a sànni ay kàddu rek ci lu xew TV waaw ñu déglu woon benn vidéo waaw vidéo bu am solo boo xamante ni tey jii nii ñu ngi koy wax si wàllu viol yi waaw wàllu photo yi nga xamante ni moom la ñuy envoyé ñi nga xamante ni ñoo nekk fii nii jigéen ñi waaw di ci kontaan bu baax a baax di leen wax ni seen liggéey rafet na wax dëgg yàlla. à chaque fois yéen a ngi doxal loo xamante ni waaw bu leen ko defee rek Sénégal dina dox yéen a ngi koy xalaat di ko def waaw depuis idole ba léegi tey ji ngeen génn benn série boo xamante ni merci la muy jigéen ñu am jom waaw ju ju nangoo fight waaw di leen ziar bu baax nag wax di kontaan ci yéen di wax ni ñu ngi leen di bu baax a baax wax dëgg yàlla seeni épisode am na solo waaw parfois da ngay nekk fii nii bark yàlla Europe ngay nekk xam nga. billaah wallaah mais doo bëgg a dëgg dëkk sax Sénégal parce que yu ñaaw yi ngay dégg ak yu yoo xamante ne yu tegginewul la yu rafetul waaw euh, jigéen ñi nga xamante ni tamit ñoo nekk Sénégal nanu maytu ñi nga xamante ni ñoo nekk Europe fii nii parce que bëggul ñu lu dul maanaam ñoom seen intérêt la ñu xool ñu yow sa intérêt kon jigéen ñi dama bëgg ngeen takk seen ndigg ngeen am fulla ci seen bopp muy jëkkër ak copain si yow yaa ngi dégg. góor bu la bëggee du la def loo yenn yi da ngeen di xalaat bu baax a baax a baax góor bu la bëggee dina la rusloo def yenn yi waaye di leen ziar bu baax a baax tamit euh, rafetlu nan wax dëgg yàlla affaire yi rafetlu nan ko trop trop di leen ziar bu baax waaw di kontaan ci yéen wax dëgg yàlla yàlla na saa borom defal leen jàmm ak tawféex chaque jour moom ñi ñuy xool ci yéen wax dëgg yàlla du kenn du juum billaay yéen a ngi doxal Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm ngi jëf waaw di leen waxaat rek ni lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole te tey jii nii c'est la première fois waaw ñuy def lu mel nii wax dëgg yàlla euh, série bi du duñu raw dañ koy suivre depuis idole ba mërs bi nii dañuy suivre dañuy suivre seeni seeni vidéo wax dëgg yàlla am na solo trop trop waaw di waxaat ni na góor ñi yërëm jigéen ñi na góor yërëm jigéen ñi parce que loolu mooy li nga xamante ni moo war wax dëgg yàlla tey nii jigéen ñi sonn nañ tey jii nii xam yu si baree baree bare bari yaa ngi dégg tey dina jigéen ñi ñu ngi koy def yaa ngi dégg mais góor ñoo leen ci forcer parce que lan amu fitu jàkkaarloo góor ni ko may ma yaa ngi dégg ndax góor ko wax sa problème du ko faj wala dalay dalay santas ñuy jëmbale jigéen ñi parce que ñoom sonn nan képp ku si xam ne nag jigéen moo la jur yaa ngi dégg képp ku si xam ne jigéen mooy sa moo la moo sonn ci yow non di nga rusa def yenn yi ñenn ñi nag dundul xalaat quoi waaw mais nañu xalaat bu baax a baax ne jigéen moo njëkk te mooy mujj nañu xam loolu waaw jigéen mooy lépp wóor na yàlla. asalaamaaleykum kilifa gi ziar naa la mbaa yaa ngi si jàmm ñu ngi lay di nuyu di la ziar bu baax a baax di kontaan bu baax a baax baax ci li ngay partagé ci internet bi ñu ngi koy déglu sànq rek lay déglu sa vidéo bi nga dugal di ci wax ci xale bu jigéen boobu ñu violé ba pare rek ko. muy lu ñaaw lu métti loo xamante ne nii tasaaroo na ci réew mi ba nga xamante ne nii surtout ray bu métti bi am ci réew mi man nag jàpp naa ne gouvernement bi am nañ ci responsabilité bu mag a mag a mag a mag ndaxte ñun fi ñu nekk nii bu 4 avril jotee ba ñu gis arme bii génn léegi arme boobu ñun ban njëriñ la amal bu xeex amee ci beneen réew gaa yi dem fa du ñàkk sax suñuy doom dee fa suñu militaire dee fa ñun suñu biir réew mi sécurité bu fa nekk mënuñ koo faj loolu loolu ban zaaru mbir la doo xam ndax yëfu naa naafeq la ci ñoom wala doo mën a comprendre léegi nit ñi dañuy dee ci réew mi comme ay weñ léegi ana ana sécurité ana sécurité amuñu ko benn amu fa waaw muy lu doy war loo xamante ne ni lu ñu war a jóg la tey da ngay gis théâtre yi dëgg la dañuy defar ci benn côté bi waaye dañuy yàq ci benn côté bi mais tey boo bu ñu jël côté côté négatif bi rek tey gis nga tey ñiy joué théâtre bi nii. gis nga tey li ñuy wax ci euh, li ñuy joué nii léegi ana kilifa diine yi nga xamante ne ñu ngi kaas ne ñu ngi def théâtre yu bon yi nii mais léegi lan moo tax ñoom du ñu jóg duñ leen gis ñuy kaas ci kon kii ñu fayal la tey ana ñoom ban taxawaay lañ ci war a mën a am ñoom ana ban xeex lañu war a mën a am bañ fexe ba ku rayati nit ci réew mi ñu ray la parce que loolu mooy jeexal affaire yi parce que bakkan dafa fort te ñoom war nañ ci am responsabilité bu rëy rëy rëy comme tey am na ay nit yoo xamante ne nii. ay ay mbooloo la ñuy doon ci réew mi ay kilifa diine yoo xam ay mbooloo lañ waxuma sax ñi nga xam ne ñoo ŋànk tarixa yi toog seen kër mais ñi nga xamante ñoom la ñuy gis ci média bi ñoom ana yan tànk taxaw pour mën a dem ci kilifa diine pour convaincre leen pour ñu ci nguur gi wax ak ñoom bu ku fi rayati nit bañ xam kii ñu rey la wala ñu def la loo xamante ne ni keneen du ko defati parce que bakkan dafa foor xoolal ki nga xam ne dafa nekk ci këram man ku génn ci mbedd bi sax tuuti nit dana ko mën a comprendre tuuti mais ku nekk këram nga fekk ko këram violé ko ba pare wërbati ko rey ko sa waay lii ñaaw na lii métti na ci deru réew mi waaw léegi léegi fi mu toll nii ñun ñu nekk bitim réew fii kuñ ci rey ñu nekk ci réew mi nekk di wax te léegi xool ñi ci biir réew mi loolu moo gën a danger yow yaa ngi rey ñi nga bokkal carrément kon kay bu la keneen reyee ci àll bi amul looloo wax te tey ñooñu tey lu bari foofu lañ koy gisee ndax information yi fu ne lay jógee ah. li ñu war a xeex si suñu réew mi bari na li ñu war a kaas bari na lii dafa ñaaw billaahi dafa ñaaw. maa ngi jégalu bu baax nag ci message bu gudd bi ma lay envoyé nii jërëjëf mais kontaan nañ ci li ngay def ndax yu bëri te yéen ñu koy wan. salaamaaleykum yéen waa UTV maa ngi leen di nuyu baax di leen ziar Serigne Bara Mbacke moom Serigne Ahmadou Mbacke ibnu Serigne Bara moo leen di nuyu baax te di leen ziar di rafetlu seen vidéo bi sax naa ko seetaan ci YouTube bi di mettlu ndaw si nga xam ne dañ ko réer ray dëkk Tamba naqar nañ ko lool nag ko dëgg yàlla tey ki jëf-jëf ji da koo xam te nañ ko topp yoon def liggéeyam jigéen ñi nga xam ne maa ngi seetaan seen film bi seen théâtre bi ñuy xeex ñuy mettatal jigéen man de ànd naa ndax jigéen mooy waajur te jigéen kenn wul ko toroxal kenn wul ko vuyeere dëgg yàlla waaye nag lii mett na ñépp képp kuy jullit da jullit ndaw si nga xam ne amoon na boroom kër ah li ci ëpp bokk loolu lañ wax baayam génn yaayam génn ka xam ne mooy gàddi kër génn ñu fekke ko ñu fekk ko fa viol ko rey ko kooku da koo xam te daa topp ay famille bañ génn mu def li muy def léegi nag anta mana ñun ban Sénégal lañ nekk toroxal jigéen fitna jigéen viole jigéen rey jigéen te kenn du ci wax dara loolu est-ce que ñun Sénégal gi ñu nekk xam nañ ban senegal la nañ ko waxtaanee nañ ci jub mett nañ yëpp nag ñu ngi koy ñu ngi koy mettu di ko jaale fameem di ko jaale borom këram di wax ne ñooy ànd ak ñoom naqar yi man nag mett na ma man baaram Mbàkke mett na soo léegi maa ngi koy seetaan sama xol dafa fees sama xol dafa jeex waaye nag kañ mën ci dara ba léegi maa ngi koy siifo xale bu jigéen ñi ñi nga xam ne dafa jël fotoom di ko foto di ko envoyé borom këram xale itam jël ko envoyé ko moom jàpp ne borom këram moo ko envoyé si internet loolu it man lu mukk ndax jigéen sa arwa sa nga xam ne sa yaram la danga ko sa boroom kër sax fu mu mën a nekk dala photo yónnee dafa garaaw naa ak feneen foofu boroom kër lum lum la sori sori bàyyi ba nga ñëw waaye nag yow ndaw si nga jëkk photo di ko yónnee muy yàq sa der sa àdduna ba sa say sa njaboot ba say sët loolu baaxul bu dee séeri bi man gis naa ko ñu ko def am na si ndaw soo xam ne looloo ko benn faram moo ko teg soog mu envoyé ko ay photom far bi di ko santas di ko publier yooyu ñëpp gis ko mu jël ci am ba gaañ loolu kooku sama xarit la woon lugal dëkk beneen bis toppit rafetluuma góor ñi nga xam ne ñooy laaj jigéen ñi seen yaram si photo si téléphone déedéet boo ko bëggee dama nga takk ko sax na n'est-ce ndax jigéen dafa doon loo xam ne dañ koy suturaal dañ koy wormaal ndax yàlla ñu suturaal te yàlla moo tax gudd moo tax ñu koy muur guddi la ko jox góor ñi it am nañ cikk ñu tax ñi fotaloo jigéen ñi seen yaram jigéen guñ ko su def da ngaa war a lànk jigéen guñ ko war a wax da ngaa war a lànk ndax loolu baaxut te wóorut te adduna bi dafa toll foo xam ne maanaka jeex na ba pare. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen baalu àq si koor gi. naka koor gi mbaa yéen a ngi ci jàmm cadre vie bi nga dugg de moom si laa bëggoon a wax sama xalaat parce que wax dëgg yàlla rafetul metti na xale bu jigéen bi ki xale bu ndaw la sama yaram sax day daw su ma seetaan wax dëgg yàlla neexul dangay xool bu ñu ko defoon sa doom mbaa ñu def ko sa rakk ñu ngi mettee c'est tamit kenn xamul daal doy na waar mais fekk nit ci këram violé ko rey ko loolu ñaaw na rafetul ñaaw na torop sax ñi war nañu xoolaat seen bopp delloo ci seen xel ci yàlla weeru koor dafa rëy am na yoo xam ne dafa rafetul ñaaw na torop sax ñaaw na torop sax lii metti na metti na daw na yaram wax dëgg yàlla soo koy seetaan sax sa xol day naqari metti na torop sax metti na fa metteem en tant que nag jigéen ñi jël di photo di futu loolu jigéen dangay am sutura sa bopp dangay am dignité am personnalité doone di góor kii bëgg na ma tax naay futtuku di ko envoyé loolu góor du la respecté dee takkagu la du la respecté bu dee jëkkër te dul yoon sax jigéen dangay am sutura yàlla daf ñu suturaal nit ki dangay am sutura say awra am sutura sa bopp boo amee sutura yàlla suturaal la mais ani jël photo wu def noo xam ne naka su dul noonu jël di envoyé pour lan pour lan léegi ki nga nekkal boo demee ba nokkatoo moom mu tasaare say photo loolu du gën a ñaaw sa der yàqu ba faw lan la soo mënee photo lu mbaa vidéo la indi bu yaboo sax nga bàyyi ma si duma ko def mais jigéen ñi daal ñoo man daal personnalité jigéen man daal jigéen daa xamatul man nu mel nii xaw ma lan la yàlla daf na suturaal ñun jigéen mais am na jigéen ñoo xam ne dañ yëpp lu sax jigéen loolu dafa ñaaw trop sax ñaaw na trop nit ki dangay am am la am fayda sa bopp pour lan futte ko ba def yàlla seen di ko fotow di ko garde di fotow di jël di envoyé góor pour lan pour lan nit ki da am sa suturay bopp boo amee sutura yàlla dalay sutura boo amul sutura yàlla du la suturaal ngeen baal ma nag wax dëgg yàlla sama xol dafa tàng nag si xale bi merci jaajëf. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ne si turam ak santam man la soxna Fari dëkk Thiès waaw man de dama gis sànq numéro bi ci youtube bi ma ne xaaral ma dugal ko intégré si ndax dëgg fa yàlla participer si mbir mi ndax dëgg fa yàlla dama cee kontaan kontaan naa ci trop vraiment man kontaan naa ci rafet naa ko ndax jigéen ñi ku leen jàppale ñu jël dañoo sonn ku leen góor tegul métit jigéen moroomu jigéen ñu ngi leen koy teg te teguñu ko fenn su dul seen bakkan te nit ku ne war nga jomma jël sa moroom nit jullit wala ku mën doon di ko teg yenn metti di vraiment moom doy na waar doy na waar trop violation bi doy na waar metti na tamit ngi bëgg a bari te trop c'est trop vraiment man nag doon na ma neex nooy ñu ko joué ci théâtre bi dëkk bu ne tey am ko ba tey képp jigéen ko xam na ne lu la metti boo demee ci ñoom jooy ko ñu fajal la sam yaakaar wax dëgg fa yàlla ndax liñ joué dafa rafet am na solo am na solo trop ñëwuñu fi rek joué seen théâtre pour kenn pour lu leen neex dañoo ñëw pour def loo xam ni luy jariñ nit ñi la vraiment man dama ko rafetlu nu naa ko trop te théâtre bi dafa maa neex neex na ma trop duma ko tàdd tout le temps dama koy seetaan